ci benn affaire nag waaw. gis nga ndey daal. waaw Touré. waaw. soo ko mënee jot. waaw. billahi wallahi wataalaahi di nga wax di loolu bis bu accès di nga ne pourtant booy bi waxoon na ma ko de gars yi dañoo ay vidéo am ba pare. xaaral nga ne dañoo préparé ay vidéo entre Ndeye Ndack ak Ousmane Sonko moo tax kon ñuy sosal Ousmane Sonko ak Ndeye Ndack ni wallahi préparé nañ ba pare xam nga Ousmane Ndeye ba ñu jàppe woon fi Ousmane Sonko ba ba léegi mi ngi génn di défendre Sonko ci gaas ah. ah loolu la gars yi loolu moo leen métti nag léegi nag billaahi di nga ne booy nañ vidéo yi ba pare te am na benn kilifa bu génn de mu ne am na benn jigéen ju siiw dinañ ko siiwal ci internet te dina sonn lool xam nga. kon de ndax ay préparé nañ ay vidéo ay vidéo ba pare moom ak Ousmane Sonko fu ñu jëm fekke ay kàcc rek la. yaa ngi dégg loolu yëpp takkal deru Ousmane Sonko dong la. xam nga li ma wax. kon moo tax moo moo tax soo ko mënee jóg. moo tax ñuy moo tax ñuy moo tax ñuy fen Sonko dafa nekkoon ak Ndeye Daak niki vidéo yooyu la ñuy préparé. c'est ça mi ngi noonu léegi soo ko mënee jóg moom bu woo ay média si internet yi sax na mu def conférence de presse wax leen monage monage yi ñu koy monagé pour vidéo yi ngir ëllëg bu vidéo yi génnee mu xam ne gars moom li mu wax sénégalais après sénégalais yi dinañ déggal moom li mu doon wax bu dul loolu rek moom après trop billahi dana sonn loolu loolu yëpp nag bu moom de Ousmane Sonko lañ bëgg xam nga gàkkal rek bëgg koo faagaagal loolu la bëgg a yàq deram ñu naan violé na Adji Sarr léegi mi ngi moom ak Ndeye Nda Touré bi ay seen vidéo ñoo nekk wallahi loolu doomu ah, comme ay xale quoi moo tax ñu naan waaw nday ndaak Sonko fan yii yëpp ñu nekk di ñu emmerder mais ñi comme ay xale. mais c'est ça loolu kese la. yi ba noppi. bare nañ vidéo yi ba noppi. deux mille vingt deux bii nii nii nii dina gars yi dinañ ko exploité jot ko. wallahi maa loolu. non frère yéen a ngi def liggéey bu am solo. Mhm. Eh, xam na kan lañ ko bëgg njëkk a proposé ah. waaw. Adama lañ njëkk a proposé vidéo yi ne leen man du ma dugg ci mbirum Ousmane Sonko <laughs> parce que di nga Ousmane Sonko ñëpp dañuy doog doog lu nii waaye kenn ñemewu ko ñoom ñëpp xam Adama lañ njëkk a proposé ba kooku ne leen dinaa publier vidéo ba mu des Sonko bu ko def te Wally Seck moo ko njëkk moo ko njëkk freiné ci yooyu sax billahi wallahi parce que alquranu kari dafa Seck laa wax ni moo ko freiné moo ko ne pour publier benn vidéo Ousmane Sonko te gars yi kenn xamagul loolu xam nga Adama di jóge fii ci Italie torinoo kii torinoo kii xam nga léegi nag Adama ne leen boole ma fayoon cinq cent milliards sax bugguma kenn mus kenn musuma fay fii vidéo yi may publier nii kenn musuma musuma see nangu benn xaalisu jàmm donc yéen du ngeen ma fay ay milliards ma nangu seen kaay du ma ko def du ma ko def wallahi allah yow ya, xamoo gaay ne moo tax ma ne la loo mënta def rek ngal la waaj fexeel nga wut numéro ndey nakuure nga woo ko ngene ko na génni wax ak presse site internet yi ponk ko télé yi duñ ko nangoo wuñu voilà mu wax presse site internet wala mu dem wal fajiri xam nga mu wax ak ñooñu mu lancer appel sénégalais eh. lépp ëllëg li ñu gis ci moom nañu jàpp ne du moom li ñuy fabriquer la budul loolu rek bu génnee rek moom dina ko bett te dana sonn trop. ci ci ci mon frère. instant instant benn complot nga éclaté nii boo xam ne yoo xamoo sax man maa ngi ne lan tax lan tax fan yii chaque jour ñu ne nday ndaak nday ndaak nday ndaak mais man j'avais pas compris. loolu dong la. billaahi mën naa waat ci alquraanul karim vidéo yi bari na ba noppi nii laa lay wax nii. vidéo yi pare na ko noppi wax leen ko tey naa buuree bu mu dof na génn mu teel a yëgal loolu sénégalais yi ëllëg lu ñu gis rek loolu sénégalais yi nañu xam ne du moom dañ dañoo fabriqué loolu. Hmm. musul toog ak Ousmane Sonko sax ñuy waxtaanee yaa ngi dégg. mooy loolu. parce que xam ne ndey Ndaa Touré mi ngi génn nee naa la depuis événement Massi ndey Ndaa Touré bi laay sa tout temps moom day génn. di dinaa ko invité dinaa dina dina dina dinaa wut numéro dinaa wut numéro ma invité. voilà voilà di défendre Sonko muy wax injustice bi nekk ci réew mi nañu jàppale xale toujours moom day génn di wax ci yooyu wallahi billahi wallahi keroog dama doon seetaan benn directeur am na ñi ko doon menacé ñu di ko saaga ba mu jooy ci direct bi dafa mujjee coupé direct bi sax wóor na yàlla billahi barki yàlla. taxawaay fexeel nga wut numéro am man bu ma amoon numéro am billahi non dina dinaa ko am am na ku ma ko mën jox léegi léegi léegi am na ku ma ko mën a jox c'est ça teel a génne am baax na trop waaye waatal naa ko ci alquran karim bu teelul génn rek yow après dañ ko yërëm sax billahi wallahi <laughs> maa frère yow sa appel bi am na solo tey trop torop ñun ñoo lay remercier infiniment voilà jërë nga jërëjëf mon frère jërëjëf patriote. jërëjëf man waa jële rek. waa jële rek. Eh, yow gérer ñu jabaram rek yow gérer foofu rek. voilà voilà ñun ñu ngi koy woowee Baba Babacar Kane Babacar Kane kii daan woo woo kii nga daan déglu foofu ay message am sànq. dinaa la envoyé dinaa la envoyé tur jabaram message bi. nga a ngi koy woy lan a ngi koy woy lan. kooku kooku man Babacar Kane kooku man kat ndey kii ci sama dënd bi muy am lu muy expliqué. bàyyi ko kooku dafa am lu mu wax. bàyyi ko événement massif barki Seydina Mohamed dafa taw dafa taw dem làqatu Mauritanie jabar ji moo ma woo mu ne ma sa waay de daw daw na dem na Mauritanie. billaahi wallaahi muy am lu